par rapport à la presse ku nekk nga xam ne non non non par rapport à la par rapport par rapport à sur eh, les décisions qui ont été prises par rapport au littoral pour les deux mois man question rek laay laaj kan moo am droit def arrêt des travaux. est-ce que c'est le premier ministre ou bien est-ce que beneen organise moo am droit arrêter des travaux pour deux mois maintenant su nekkee dañuy arrêter travaux pour saytu ko c'est une bonne chose c'est une bonne chose. pour xool littoral bi domaine maritime bi naka lañ ko naka lañ ko lañ ko lañ ko gérer. Mm-hmm. mais man it aussi damay proposer ñu yokk assiette bi. ñu bañ ko yemale de deux mille vingt à deux mille vingt ñu yokk ko assiette bi nañ ko yokk. ba mu gën a arrière mu gën a pour sénégalais yi gën a xam gën a xam li xew ci domaine maritime bi. c'est-à-dire du 2020 quoi nañu xool parce que littoral bañ ko commencé di di def nii. dafa yàgg. et les des responsabilités doivent être situées. maintenant nag sur la mise en place du comité ad hoc ñun ñëpp dañ ciy ànd te ñun ñëpp dañuy tàccu. parce que aussi suñu littoral la domaine maritime bi ñoo ko moom population bi dañ ci war a am accès. maintenant ku képp koo xamante ni da ko war a nekk rek dañ ko war a dañu a xam. lu tax dafa war a leer dafa war a leer waaw mais ñu bañ ko tëj ci fourchette 2020 2024. waaw nañ ko gën a yaatal. pour affaire bi gën a leer parce que suñ ko tëjee ci fourchette 2020 2024 rek day am ay jiixi jaaxal les gens vont poser des questions par rapport à beaucoup de questions. Mm-hmm. par rapport à la situation pourquoi mu yem fii.